bisimilah bisimilah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñoo ngi leen di siyaare jox ku nekk yéeguwaayam di ko buur yàlla jox ñëwaat nañ nag ci seen émission bi nga xam ne moom la àdduna yëpp doon topp muy seen émission bu mag boobu nga xam ni monde entier ñoo koy seetaan muy émission jëf jël émission jëf jël nag ñoo leen ko doon présenté waaye ren nag dañoo bëgg émission jëf jël ñëw ci beneen facette lay ñëwaat ndax dina ñëw ci nak facette ndax bu jëk dañ daan fekk sikarkat bi wala jankat bi dem kërëm waxtaan ak mom waye nak olof mo wax ni ku yok, ku wàññiwul ya yok ku yokul ya wañi dañoo bëgg nak yok yëf ni ko yoké moy dañoo bëgg def ni képp ko xamni bay bàyyi nga bala ngay jankat lo mën a doon manam di yëngu ci dara ndem ya xam dañ lay fekk ci biir tool ba nga nekk bay faal ñu fekk la ci tool ba nga yëngu tool dañ la fa fekk jëf jël dina la fekk bu fekkee ne dañ laa fekk nga nekk ci mécanicien bi jëf jël dina la fekk dinañ la topp ci robinet bi foo nekk dinañ la fa fekk sikarkat bi jaaykatu café bi dinañ la fekk fa ngay jaaye kafe ñu waxtaan ak yow ci kafe gi waxtaan ak yow ci yoon wi waxtaan ak yow ci lépp émission jëf jël bàyyeetul dara kon nag mbokk yi na ko ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ni bagage yi Baye Fall la danañ ko ci waxtaan lu waay bëgg a xam na ko doon toppee yéen a ko doon laaj ñu soññ ba tey jii ñu ñëwoon nag tàmbale war nañ ko kon na ko ñëpp bàyyi xel kon ñoo ngi leen di waat bu baax di leen jox rendez-vous incha allahu bi talaata bii di ñëw seen émission jëf-jël dina nekk en direct dina tàmbali ci seen bu mag bi di TMP Events di top model nga xam ni mooy seenu Baye Fall yi seenu ñëpp moom la ñuy topp kon nag mbokk yi na ko ñëpp bàyyi xel incha allahu bi ñoo ngi ñaan ci màggug yàlla baaxu yonent bi barke borom Touba Khadim Rasoul doolay Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ñëpp am jàmm barke Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Cheikh Fall Baye bu góor jërë ngeen jëf Israël amoon